bu fekkente ni da nga bëgg a décrire cantakun bi comme nit koo xam ne nit ku ku ku amul fitna la mais loolu naka nga koy expliquer pour ñu mën ko gëm ci ñoo xam ne ci seen biir lañ ko defante décidé nañu de mettre le Cheikh sous mandat de dépôt mhm. ah moom mi médecin bi c'est sa responsabilité ñoom ñoom dañuy prêter serment ñoom dañoo am une responsabilité par rapport a un patient surtout bu ñu xamee son état de santé. Ah, moom c' est en toute responsabilité may ma rek ça c' est pas une première au Sénégal Papa Ngagne. waaw mais xoolal li ñu ko taqal ni mu wuuteeg li nga wax li ñu ko taqal mooy rey ay nit jël leen suul leen ci benn kàmb une fosse commune xoolal loolu nga xam ni taqal nañ ko ko ba tey ci la jàkkaarloo ak yoon loolu wuute na lool ak li nga wax ni moom nga xam ci moom muy fonk doomu aadama.